nga xamee ne mooy dogal lépp lu am te mooy soppali ko ci bis yi ak weer yi noo ngi koy sant ci xéewalam yu mat yi te bari te moom mooy jéggalaakoon bi mooy santaakon bi maa ngi seede ne amul benn buur ku nu moom amul ndend amul bokkaale moom rek ma moom nguur moomu cant te moom rek moo am dogal mu am kattan ci lu mu mën a doon maa ngi seet na Seydina Muhammad jaamam la ndawam la mooy kiy dégle mooy kiy suppee mooy làmp bi leeral yàlla na yàlla julli ci moom ak ñooñam ak ci saxaabaam te sëlmal ci moom sëlmal gu bare bare ba ca bisub jekk ba bisub bu mujj ba ginnaaw loolu mbokk yi nanu ragal yàlla te xalaat xalam ci gaawaayat bis yi guddi yi romb bu gaaw bi ñuy romb loolu nañ ci xalam loolu nanu fàttaliku jege sunu génn àddina ndax kenn ku ne am nga limu bis yooyu dund am nga limu weer yooyu dund am nga limu at yooyu dund kenn ku ne ci ñun boo xoolee ba ñuy séntu weeru koor fii weeru koor bi tàmbali ak bi weeru koor bi jeexee diggante boobu ni mu gaawee nañ ci xalam te di ci fàttaliku sunu jege génn àddina loolu nag buñ ko dee xalam di ko fàttaliku lam ñu jural mooy ñu wut ab yóbbal te wut ab yóbbal ci jëf ju baax weeru koor ñëwoon na ci ñun ànd ak ay yiwam ak ay barkeem ñu dund mbooleem waxtoom yi waaye weeru koor jeex na laxas na waaye nag dem na waaye kenn ku nekk ñun dana la seeral ci xam boroomam kooku weeru koor dana ko sàkk dana ko seereel ki nga xam ne xam na boroomam ba noppi fexe ba jariñu ci weeru koor bi ci topp yàlla kooku weeru koor bi seere lay doon ci moom ëllëg waaye nag képp ku sàggane woon weeru koor bi sàggane ndi ndigalu yàlla yi kooku tamit weeru koor seere la doon si moom ëllëg weeru koor bi jeex na waaye kenn ku nit ñun na rek la boppam xool ba xam lan la def ci weer bi su fekkee ne lu baax la na sant yàlla te ñaan yàlla nangul ko te yàlla may ko mu sax ci topp yàlla diirub li des ci dundam su fekkee ne koo xam ne dafa sàgganoon ci weeru koor wi na tuubal yàlla te nag fa siiree tàmbali dund ku bees goo xam ne nii lépp da koy jëmale ci topp yàlla wattee ko nag dund gi nga xamee ne da koo sànkoon ci ak sàggante ak def lu ñaaw amaana bu defee loolu yàlla faral jéggal ko la weesu woon yàlla tawféexal ko li des ci mu jëf lu baax suñu borom wax ne ci alxuraan ne képp koo xam ne nii dangay def lu baax lu baax loolu day far lu ñaaw li ngay li ngay nee képp ku lu ñaaw na ca lu rafet ndax lu rafet loolu day far lu ñaaw loolu jaamu yàlla yi nanu xam ne jaamu yàlla dafa war ci bépp waxtu jaamu yàlla kañ lay jeex mooy su faatu ñëwee suñ borom nee na na nga jaamu sa borom ba keroog dee di la dikkal yéen ñi nga xamee ne gëm ngeen yàlla yàlla nee na na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla te bu leen faatu lu dul ngeen nekk ay jullit ki jàpp na nag jaamu yàlla moom ci weeru koor dong lañ ko sant bu weeru koor jàllee daal mën naa bañ jaamu yàlla wala mu jàpp mooy yàlla ci weeru koor rek dañ ko ko tere su weeru koor jeexee mën naa delluwaat ci mooy yàlla kooku dafa ñaaw njort te it dafa réere xaq yàlla kooko xamul diine kooku sax xamul dëgg dëgg dëgg eh, li war suñu borom jox ko akam ndax du topp yàlla lu dul ci weeru koor du ragal yàlla lu dul ci weeru koor weeru koor rek lay yaakaar ci tiyaabab suñu borom ku mel nii kat na xam ne dafa mel ni ku dagg relation bi dox di gëm ak borom jëf lu mu bari bari ak lu mën a doon bu fekkee dañ ko yemale ci weeru koor dong su weeru koor jàllee nga delluwaat ci mooy yàlla delluwaat ci caaxaan bañ a jaamu yàlla ah xamal na gis yooyu dañ koy delloo boromam ñi jariñu ci weeru koor dëgg dëgg jariñu mooy ñi gëm yàlla nga xam ne dañu doon jaamu yàlla ci weeru koor ba weeru koor woo jàllee ñu continuer sax ci jaamu yàlla continuer nekk ci ak njub ndax dañoo xam ne weer yëpp yàlla moo leen moom te it yàlla weer wu ne mi ngi ñuy bàyyi xel te dañoo digal jaamu ko ci weer wu ne kon mbokk sax ci jaamu yàlla nanu ragal jëf lu baax ginnaaw weeru koor bokk na ci màndarga yi ñu nangul la sa jëf ju baax nga tegaat ca jeneen jëf ju baax weeru koor daal da doon sawarloo ci lu baax di tàmbali ak tuub ak jëf ju baax waaye nag jëf moom mi ngi jeex nit ki li fekk mi ngi dund jaamu yàlla mi ngi koy wax su faatoo nag yàlla tegal na ko jaamu yàlla kon jeexaayu dund gi ci la jaamu yàlla di jeex waaye doonul jeexagu weeru koor wi bokk na ci mandarga yi nangu tuub ak jëf yi nga doon jëf ci weeru koor ginnaaw bu weeru koor bi jàllee ñu gis ne yaa ngi gën sax ci jàmm yàlla boobu yaa ngi gën sax ci moytu tere yàlla yi képp ku mel noonu rek xam ne sa weeru koor nangu na kon mbokk yi nañu yeewu te nañu xool sunu aal ginnaaw weeru koor wi nanu xam ne buntu tuub dañ ko ubbi ci weeru waxtu wu ne waaye rawatina ci weeru koor waxtu wu ne suñu borom mi ngi ubbi buntu tuub kon saa yu la tuub rawee ci weeru koor bul naagu ci yërmaande yàlla gaawal tuub ci waxtu wu ne ndax yàlla mooy nangu tuub jaamam bi yàlla mooy jéggale bàkkaaram yépp suñu borom nee na yéen sama jaamu yi bu leen naagu ci yërmaande yàlla yàlla day jéggale bàkkaar yépp yàlla jéggalaa la yërëmaa la kon mbokk yi nañ fexe ba lu baax liñ fàgg woon ci weer koor ah nañ fexe ba sàmm téye ko buñ ko yàqu nag ci dellu si ay mooy yàlla ak yi jëf ñu ñaaw bu ko defee kon day mel ne la ñu dañ ko màpp day mel ne la ñu jiitaloon ci lu baax dañ ko yàq ndax nag caay-caay ak jëf ju ñaaw saa yu bare boo alak boromam te it bu ëllëgee ba ñuy feesee balance ya dina sa balance yi nga xamee ne mooy jëf mooy moom la ñuy teg sa jëfi ñaaw kon mbokk yi noonu bàyyi xel loolu xam ne jaamu yàlla moo jeex weeru koor moo jeex waaye jaamu yàlla jeexul mbokk yi maa ngi fàtte sama bopp di leen fàttali wax ju gàtt ju ak Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko wax ci weeru ci korite muy wax ju gàtt joo xam ne nii daal mel ne nit ñi dañ koy dégg rek mu jàll te wax na lépp ci kàddu gu gàtt googu dafa wax ne corona lu ko waaye wax tooñ ndax moom jaamu yàlla la bu jëfee li ko yàlla digal loolu lu ñu ci war a déggee mooy ñu itam ay jaamu yàlla lañ kon nañu nekk ci ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla yi loolu sëñ bëgg a wax bu ñu ëpp ful la moom corona jaamu bi yàlla la ñun waaye mi ngi ngi jëfee ndigal yàlla yi sëñ bi laa bëgg wax ñu itam nañ sax ci ndigal yàlla yi bàyyi tere yi buñ ci saxee doon dëgg dëgg jullit jullit lu ko dal bu dee safaan ba bu ko muñee am tiyaaba bu dee lu neex bu santee am tiyaaba kon sëñ bi misaaf boobu la bëgg joxe mbokk maa ngi jeexale sama wax ci Ibrahima ibnu Adham waliyu yàlla bu mag woowu dafa mos romb ci marché Basara nit ñi dajaloo wër ko ne ko yow Aba Ishaq yow Ibrahima ibnu Adham ah yàlla de ma wax ci téere ma ne ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen yàlla wax loolu de waaye ñun daal ñu ngi ñaan yàlla diir bu yàgg te daal daa mel ne yàlla wuñu sunu sunu ñaan kon lu xew Ibrahima ibnu Adham neen yéen waa Basra seen xol da am fukki yëf yu ko rey fukki yëf yooyu ne seen xol moo tax bu leen ñaanee suñu borom du leen may mbokk yi nun waa Sénégal nag nan xool ba xam fukki yëf yooyu mi ngi ci ñun wala déet Ibrahima ibn Xam nee na yéen waa Basra da a xam yàlla xam ngeen ne yàlla am na xam ngeen ne yàlla moo sàkk lépp xam ngeen ne yàlla moo yàlla waaye jox leen yàlla àqam ñaareel ba yéen a ngi jàng alxuraan waaye jëmmu leen alxuraan li alxuraan digle nekku ci li alxuraan tere bàyyiwu leen ko ñetteel ba. ah yéen kat na ko ne ci yéen yéen a ngi woote ne daa bëgg ab yonent daa bëgg yonent bi kenn ku ne xam soppeeku yonent bi waaye nag ah, bëgg yonent ba noppi bàyyi sunnaam la yonent daan ko def lam daan wax du ko wax nam daan jëfee du ngeen ko jëf ñeenteel bi ne ci yéen daa woote ne saytaane mooy ab noonam wax ko ñëpp dégg ba noppi nag ko dëppoo ak saytaane lu saytaane woote mu dem ca lu mu digle mu ne ca mu ne juróomeel ba nag yéen ñëpp lay maye àjjana ah, bi yéen ñëpp da wax ne da ngeen sawar waaye maytu leen sawar de kenn ku ci yéen ma ngay jëf lu ko yóbbu sawar juróom-ñaareel bi mooy da wax ne dee dëgg la dangeen ngeen koo wax de waaye nag ah waajul leen dee de juróom-ñetteel ba da ngeen bàyyi seen ayib yi bopp seen ayib yi ngeen am seen défaut yi ngeen am da ko bàyyi teg ko fële ba noppi lijjanti seen ayib yi mbokk juróom-ñeenteel ba yéen a ngi lekk xéwalu suñu borom waaye ba noppi nag delawu leen suñu borom njukkal fukkeel ba saa yu ngeen xëyee yéen ngi yokk ay néew jël ay néew yóbbu leen ci barab la denc leen fa rob fa waaye taxul loolu ngeen xalam ci mu ne fukki yii moo tax yéen waa Basra bu ngeen ñaanee suñu borom di leen wuyu te fukk yii mu dul tudd te nekk ci waa Basra ku mu nekk ci yow wala ñu mu nekk ñoom bu ñu woowee yàlla du leen wuyu yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla sàmm te aar yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañuy jëf lu baax ci weeru koor di jëf lu baax ginnaaw weeru koor yàlla nañu yàlla jégal suñu bakkaar yu njëkk ak yu mul yu ñu xam ak yu ñu xamul yàlla yàlla taxaw daara yàlla yàlla taxaw ñooñ daara képp kuy xeex daara ak ñooñ daara yal na la yàlla alak yal na la yàlla jox na la day sëkk ba doo ba doo salak daara aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa li saa'iril muslimin